responsable. Euh, cette dissolution voilà noonu laa bëgg xam en nga tontu ma ci loolu mais pas nga koy ñàkkal fayda mais am na. bu mais amul fayda après su ma ko respecté woon du ma mbubboo tuuru Pastef ba di wax ak yow tey kon dinaa wax Abdou ex Pastef mais maa ngi di daan la plus grave su yàlla defee ba mu am bunt samedi damay organiser lu rëy ci tuuru Pastef. samedi lu rëy. mbaa pare nga mbaa pare nga pour man man ñëw. mais mbaa pare nga non non Pastef yow yaa ko existé wul sa xalaat la wala dafa amul nañu wax ne aussi la vérité yow foofu mu nii sa propre sentiment nga nekk di. exprimer non non non arrêtez. j'ai absolument laa gis. bu ah, ñu signé déglu ma loolu laa la ci la base de ça lay wax man pas sama sentiment amul amul solo. en fait déglu ma un document pareil boo ku jëloon sax soit ma considère la pareil. Mhm. supposons un document pareil est-ce que le décret a été publié. un décret qui n'a pas encore été publié ne produit aucun effet kooku pour ma wax la ko ça c'est d'un point de vue de la technique du point de vue des connaissances bu fekkee léegi nii damay waxtaan ak yow pour ëllëg mhm. en en dehors de ce député faut que président jël le décret tant que le décret n'a pas fait l'objet de publication dans journal officiel le décret ne produit pas encore seen effet xam nga lu waral loolu mhm. c'est parce que bu ñu ko publier ci la ñuy def l'exposé des motifs soo defee exposé des motifs ki nga xam ne moom nga ciblé bu fekkee affaire bi doyu ko dafay saisir la cour suprême. déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma. ont été fermés. par qui. par l' administration. c'est pas la première fois suñu dugg. ça fait des mois et des mois du ñu mos a dugg. yow yow tam yaa Dakar waaye yow war a wax lu mel ni mosuñu dugg suñu siège ça fait même un an même père père bu kii. Déthié Fall Déthié nga xam ne joteewul ak Pastef. Mm-hmm. siège am doo fa mos a dugg Gakou bu ñu bëggoon def noonu les assises là déglu ma les assises. dialogue bi dialogue bi kenn jotul dugg loolu ça fait partie de la culture de l'arbitraire. Mhm. nekkul lu bees. donc siège moom ñu dañ ci dañuy yàgg n'est-ce pas gis ni chaque fois parti opposition bu bëgg a def réunion dañuy tëj sa.